salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar Net ginnaaw bi ñu leen nuyoo euh, kontaan baax a baax ci topp bi ngeen ñuy topp Ouzin ngeen di àndal euh, ci seen émission bi nga xamante ni mu ngi tudd gise ak gise ak nag tey dañu euh, jublu ci li nga xamante ni moom mooy wàccaayu 17 avril bi tey ñu ñëw fii nga xamante ni moom mooy Mermoz te ku wax Mermoz wax Serigne Béthio Thioune tey ñu ñëw fii war a waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy doomam ñu koy wax Serigne Khadim mboose mais balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañu koy bàyyi mu nuyoo mbokk yi ñu ñëw ci yaatal bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu la baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh ñu ngi ziare mbokku jullit yëpp di ziare mbokku taalibe yi di wax sëñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te di nuyu mbokku jullit yëpp di baalu àq ñëpp ci koor gi euh, ci barkeb sëriñ Saliou. alors euh, ku wax ku wax 17 avril wax euh, daja bi nga xamante ni sëriñ Béthio Thioune sa waajur sa waajur sa sëriñ nga dajaloo sëriñ Saliou alors boo ñu doon dikkaatal si daja bi lan nga ñu mën a wax. waaw moom day. 17 <coughs> avril 1946 moom day day bis bu yéeme boo xamante ni euh, ñun cantaakoon yëpp mooy suñu bis waaw bis bii ñun moom lañu am ndax lépp lu ñu am ci sëñ Béthio am ko ci sëriñ Saliou am ci ngërëm am ci lépp lu ñu mën a am rek ci lu baax ci bis bi lañ ko amee ndax bis bii la sëriñ Saliou ah daje woon ak sangam ba ak jaamam ba nga xamante ni mooy. mooy sëñ Béthio a ah, ba ñuy daje nag ca 1947 euh, 1946 la woon ca Taset ci dëkk bi ñuy wax Taset euh, euh, suñu waajur nekkoon ci toolu baayam doon bay ànd ak magam ju baax jooju yi ñuy wax sëñ Gëlë Cuun sëñ Saaliw romb leen ci watiir ba mu leen rombee seex bi daal samp gopp bi daal di daw daal di wutali sëñ Saaliw sëñ bi wax jokke bi ne ko taxawal ne ko nongalee ak sil mu ak si mu ne ko noo tudd mu ne ko beccu kee sa kee toog kan la këli taxaw mu ne ko kee day mooy sëñ gële cun gële cun saa mag la bokk ndey ak bàyyi mu ne ko tool bi seen toolu bàyyi la mu ne ko ak ah suñu toolu bàyyi la fii la ñuy bàyyi mu ko guddi jotee na nga ñëw sa kër bàyyi Isma Diouf ngeen fekk si ma ngeen ñëw reer seeg man ah, ah ku ah, guddi jot ñu wax sama maam bam bi sama maam mbaam mi ne xaar ba seen waajur ñëw sama maam kuli bi sama maam ñëwee ah fekk lañu sang sangu ba set solo yére boobu fekk na euh, jamono yooyu dafa am daam foo mu ñoon wax jeu bu ñoon wax gàttombe benn jeu la boo xamante ne en cercle la ñuy def groupe yi day nekk fii ñiy dóorante ay kurfañ boobu metti ku njëkk a génn rek ñàkk nga ba keroog ba keroog cercle bi des ñaari nit ñoom dañoo bokk ci mënoon nag sama maam daal ne ko aye nee nañu jekki-jekki a ah, sama maam daal di ñëw ah tey de yéen da ngeen a solo ñu ne waaw ñun de daa mel ni ab mbàkki mbàkki daal moo fi jaar romb ab sëriñu mbàkki mbàkki nañ ko fekk kër Baye Isma Diouf ah, moom a ah, mooy sama maam ni tekk doon ko tàng nag leen ah mbàkki mbàkki yi ñu baax lañu ñooñu de moom naa leen bàyyi ngeen dem. kon dem leen te ñëw ah ñu daal dem sëñ Béthio nettali ndax moom ku ko fi nettali rek fekke woo ko sëñ Béthio ko nettali am na sax yu mu daan nettali cant yi waaw waaye léeg-léeg nga dégg nit ñi am ñu bari ñu koy modifié di wax lu ne rek waaw buñ demee ba ci biir ah ñeneen ñu daal dem ba kër Baye Isma Diouf fekk Serigne Saliou di ataaya mag ñaa ko wër. nee nañ ci taarix euh, bi mu xellee kaas bi mu njëkk a xelli maam sëñ Béthio la ko jox jàpp kaas bi jël daal di jox gëla cun magam ju baax ja kaas mag ñëpp naan waaw gone yi ñan lañ waaw gone yi kuli yi ñii ñan lañ ñu ne ay ñi ay doomu kuli cun lañ ñu ne ah gone yi da am nañ tawféex gone yi ndaw sëñ saar yu xelli kaasu ataay da ko jox waaw sëñ bi ay mbiram yàgg naa dëpp mbiru gone sëñ Saliou dafa yàgg cee gone waaw euh, bi loolu amee sëñ bi daal leen téye foofu reer jot ñu daal di reer doog ba mu ba mu guddi nag ñu daal di fay tëdd fanaan ci wetam ba fajar sëñ bi yee leen nañ julli biñ jullee ba noppi sëñ bi daal leen wax ne daal leen ñaanal leen ma ngeen a dellu ñu daal dellu ci kër gi lii mooy indi histoire du 17 avril waaw li may cosaan gi. Hmm. macha allah yow di nga di nga ci tuye ca at ba ca ca ba ca topp. Hmm. ca la sëñ Béthio dugg école. école at ba ci topp 1947 ci la dugg école waaw ci la dal école nekk ci école bi di ci dem di ci dem ba dem ba lu muy def ñëw sëñ Saliou ñaanal ko. ñaanal mu at bi lu mu def mu at mi sëñ Saliou ñaanal ko mu at bi sëñ Saliou di ko ñaan muy at bi ba keroog muy nekk administrateur civil ainsi de suite ainsi de suite mhm. waaw. Mhm. macha allah euh, am na solo euh, tu es mieux placé maa ngi ko doon wax pour nga wax ci loolu ndaxte xam nañ ni ci keppaaru Serigne saaliw nga nga yaroo euh, bi ñu la yóbbu ci sëñ Saliou boobu ñaataat nga amoon. sëñ Saliou dañuy mooy dem xel comme nag boobu c'était en 1993. Mhm. waaw boobu la sëñ Saliou wax jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom mhm. la sëñ Touba doon def ci mag ñi. donc da yelloo ma ko mu barkeeloo ko. boobu ci la suñu waajur wi daan nekk ci àll bisub tabaski la woon. tabaski sëñ bi daal di ñëpp. yóbbu tabaski ak taarixu tabaski. Hmm. ku xam taarixu tabaski. lu ko jamono surtout jamono jooju. waaw waaw ci ab baay bu dégg déggalu déglu si borom. Hmm. ak doom ju déggal baayam taarixu tabaski loolu la si maam Ibrahima ci bis boobu la ndigal li wàcc. Hmm. ni ko jox ma say doom damay daa laajte daa woote. mu jël ay doom joxe. waaw 1993 boobu maa ngi am ay 12 ans yooyu ah waaw hmm. ans laa am yooyu. Hmm. macha allah normalement yooyu laa war a am. Hmm. macha allah dinañ dinañ si ñëw si ni mu gën a yaatoo mais alors bu ñu bu ñu waxtaanee si Serigne Béthio Thioune sa digganteeg moom lan moo la gën a marqué ci dundam naam mi ngi fi ba léegi mais lan moo la gën a marqué biñ koy gis si Zahir. cheikh bi. waaw cheikh bi de moom li ma gën a marqué nag moom euh, dafa bari sëñ Béthio bi ma nekkee xale. ku bëggoon njaboot la ku bëggoon doom la maa ngi fàttali bi nekkee xale eh, Kaolack immaculé boobu immaculé conception bu nekk Kaolack loolu boobu jardin laa doon def am maîtresse bu ma jàpp dóor ma dóor yi metti mm. ba dagg sama dëgg ginaaw gi mais keroog suñ beccu aalu na aalu goo xamante ni ci laa xamee ne ku bëgg ku bëgg doom la waaye xol bi dara néew bi bi mu demee ci sër yi mu demee foofu daa tàng daa di sama doom di lañ dóor ba mel ni waaye ndeysaan bi ko sër bi waxee rek daa daal di wàcc ni ko jégal naa ko waaw ak oyofam ak bëgg doomam ak it euh, ak yeneen am na yeneen yu bari yoo marqué ci moom waaw suñ béjoo da daan dafa fonkoon ak njabootam waaw man mi euh, mos sama fekk sëñ Saaliw ah dama bëgg nga góorgóorlu de fekk boobu sëñ bi ba ma fay téye sëñ bi dane ma man de dama laa téye fii xam nga lu tax ma téye la fii ma ne ko déedéet mu ne ma sa baay daam bu rëy kër sëñ Tuubaa gi boobu nag du ko jox kenn ku dul yow moo tax ma téye la fi ci mbéy ah dégg la sëñ Saliou wax rek waaye dimbali ma waaw boobu nekk sëñ Saliou yombut metti na waaw metti na trop waaye ma nekk ci rek di góorgóorlu hmm. waaw di góorgóorlu ba. Euh, ba dam bay tàggal sëñ bi kafe dam bay fanaan ak moom di ko bës xam nga fanaan ak sëñ Saliou yombut. yombut ak di ko bës suñuy sang bu tedd boobu. Hmm. waaw di ko bës di nekk ak moom waaw di fanaan ak moom waaw sëñ Moutala bu daan ñëw maay taf café gi waaw ak sëñ sëñ Moustapha Bassirou. waaw am na ci bis boo xamante ni xam naa loolu après dinaa ci waxtaan. Hmm. waaw dafa bari ay. Hmm. ay suñu béykat dafa bari ay yoo xamante ni. nga xam ne cant gi njëkk def. maanaam moom euh, booy seet daaray got fa la ko sëñ Saliou njëkk a jox ndigal pour mu sant. daaray got pour ñu ko xamul. fa la àndaloon nag jabootam dem doon siyaare sëñ Saliou sëñ Saliou ni ko yow lii loo jublu ci naaju tàng wi Mbàkke xanaa sant si la loolu képp moom laa jublu si ni ko kon ginnaaw loolu la. dal kon def naa sa mbir mu dëkk cant. Mm-hmm. fa la tàmbalee sant. sëñ Saliou ci la ko waxee ne ko xeeti jaamu yàlla yëpp ak cant ci fete kaw daaree got googee la xewe woon ak xaban lagan ndokaa sëñ Béthio maa ngi fàttaliku Kaolack am na bis Baye Diaw woo ko boobu ndox amul woon ndox ngay mar léegi chauffeur boo doon jëli chauffeur boo doon yóbbu boo doon yóbbu si tarta ba wér di keroog cheikh bi ensemble costume moom la la soloon dawal camion ba ba biir ba biir daaree jàppandal keroog bi mu ñëwee fekk na dong yaa ngi dong yaa ngi mar tëdd ci suuf ndeysaan bi mu ñëwee gaare sëñ bi dana ko yàlla gërëm na la yant bi gërëm na la sëñ Tuubaa gërëm na la waaw yooyu yu bare yoo xamante ne dafa marqué ci moom. Mm-hmm. macha allah bu ñu bu ñu bu ñuy ñëwee ci ci 17 avril bi. bu ñuy mm-hmm. ñëwee ci sama ak Serigne Saliou. Mm-hmm. taxawaayam bi naka nga gisee taxawaayam bi depuis bi sëñ bi. waaw taxawaay bi fi sëñ bi daan def rek. moom la ci ci loolu tege. moom taxawaay bi jënd nañu nag jënd nañu gëlëm jënd lañuy gàtt jënd lañuy ginaar ah waaw jënd nañuy berne lépp nga fa doom lépp di waajal di sa Afrique gi ngir màggal ko waaw sëñ Saal waajal na ko ak jëwriñ yi nga xamante ni ñoom la ko seqal ak mbokk yi ak mbokk taalibe yi macha allah alors bu ñu bu ñu ñëwaatee ba léegi moom parce que déglu nañ ko si l'observateur liir nañ si si journal bi mu wax ni moom euh, fi mu taxawoon wat la taxawee maanaam dafay woo taalibe bii taalibe yëpp ngir ñu mbooloo nekk benn et que ci ba léegi ñu ngi gis ñenn ci taalibe yi ñu ngi dem di féete euh, beneen beneen wàll bi gis-gis boobu nan ko lan ban gis-gis nga am ci loolu. waaw ah, moom moom gis-gis googu mooy gis-gis kilifa. Hmm. kilifa da boole. Hmm. ah moom noonu nag lay doxee moom. Hmm. moom noonu la mës a doxee boole bëgg njaboot képp doon benn. mais ñi ñi ko wuyusiwul si loolu nag loolu loolu leen ah, di wax. ah non nag kenn mënu ci dara. seytaane bi yàlla wàccee doomu aadama ne ko sujjootal daal lànk loolu kay mënu ci dara yàlla la mbiru yàlla la. Mm-hmm. waaye du ñàkk am na ñoo xamante ni ah danañ danañ danañ gindeeku. Mm-hmm. waaye ñëpp mënuñoo nangu ci àdduna. yàlla sax dañ koy critiquer. Mm-hmm. Rasulullah sallallahu alayhi sax dañ koy critiquer. àdduna bàyyi ñu kenn. loolu mënut a ñàkk. ñëpp mënuñ laa nangul. ñu gis ni tamit Serigne Saliou Samb moom ku jege woon sëñ bi la bi muy bi muy nekkee ñu gis ni moom dafa dem ci beneen wàll te dañuy gis ni tout le temps dafay revendiquer appartenance am si soxna Aïda Diallo. waaw ah, kooku moom renversement boobu noo ko gisee. tëb dem fee ah, kooku ah, dama léegi léeg laa koy wax ci beneen site bi. Mm-hmm. Bakkaar bi gën a mag ci àdduna mooy fen. Mm-hmm. fen nee naa bu Bakkaar yëpp wàccoon wàcc Bakkaar yëpp wàccoon fen. Mm-hmm. ñu peese leen fen yéeg. fen mooy bàkkaar bi yoo xamante ne suñu borom du ko jéggale te moom Saliou Samb moom laay waxal daa jàng alxuraan ba mokkal ko macha allah kon bu mu fooyee alxuraan gi alxuraan kenn du ko fooyee xasida sëñ Tuubaa yi kenn du ko dëpp mbindum yàlla suñu borom bi kenn du ko dëpp te Saliou Samb mu ngi koy dëpp Saliou Samb na ragal yàlla te xool ci yàlla addo bi kat day jeex addo bi day jeex te dem liggéey ji te bàyyi di toppaate ak a wax naka sudul noonu ñun nag ñu koy lancé message boo xamante ni mu ngi ci plateau yi di wax fu ne mu nekk fa day wax na bàyyi suñ beccu muy waxal lu amul suñ beccu di moroomam c'est valable pour Boubacar Konaté mook bu Boubacar Konaté nañ wàcc si seex bi ñuy tumal di ko tumal di wenn wax yi ñoom suñu waajur bi lañ ji lañ waxoon ni ci li moom lañ jébbalu suñu waajur bi làqu na su suñu bët demul sax nga mi ngi fi mmh, waaye nañuy defar bu ñu mënta defar nañ daal di bàyyi wax ji waaye wër ci télévision yi di wax naka sulu noonu loolu lañ ko bàyyi loolu amul solo sal sàmm li may wax xam nga ko yow moom bu mu ñëwee fii ci kër gi ñu ñoo ko indi ci kër gi sal sàmm sëñ Sall midaadi yi moo ko fi indi sëñ Sall midaadi la doon jàng loolu ñoom ñaar doon jàng ndoo fi alxuraan ca kër sëñ Mbombe Cissé sëriñ Sall midaadi moo ko fi indi ak ni fi dikkee sëñ Sall mi daal di mu gore mi baax lool indi ko fi ba sëñ Béthio def ko ni mu ko def te wóobaltiku day yàq ñaari diggante yi waaw loolu dama koy wax Sall sàmb lu yàqu Sall Samb ko yàq Sall Samb sax ëpp naa tudd ndax sa tur woowu sëñ Sall Samb sax tuddoo ko ndax sa maam lañ la tuddee dégg naa waaw da ngaa formé rek naan sëriñ Saliou ko tudd waaye tuddoo sëriñ Saliou ab sëriñ Saliou xam nga du yàq bàyyi yàq gi. waaw ñun nag ñu ngi lay avertir gis nañ yaa ngi ci yi di wax naka su dul noonu maytuñ la nag ngay wax dara sëñ Béthio lu amul xisa yi ngay wax dara du ci dëgg amul bàyyil wax ji boo mënta wax sa xisa bàyyi bàyyi suñu bàyyi dama la wax sa xisa bàyyi naka am na cosaan waaye ñun suñu bàyyi xam nañ cosaanam xam nañ ko suñu sëriñ di sëñ Béthio xam nañ cosaanam ñun moo ñu jur kon xam nañ fi mu jaar yëpp xam nañ ko kon nag ñu ngi lay avertir di la di ñaan dañ lay ñaan njëkk bàyyi li sëñ Béthio plateau yi ngay dem toog di wax naka su noonu yamal ci place taalibe nga yem ci mu jeex boo ci mën ta wax lu baax mu ci yokk loolu daal lañ lay ñaan waaw. Ah, am na solo eh, bu ñu bu ñu ñëwee xam naa ñu ngi si catal émission bi ndax bëgguñu la téye ndax sa temps bi du ko mate. Mm-hmm. waaye fi ñu mën a waxtaanee ba léegi mooy sa mag Serigne Saliou gis nañ jël na 51 millions jox ko Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ngir jàppalee ko si liggéeyu euh, université bi loolu ban gis-gis nga ci am. waaw loolu loolu yoonu murit la ñàkk addiya la. jëf la sa jëfal sëñ Tuubaa la. waaw loolu euh, damay euh, damay santaale cantaakoon yëpp. yi mhm. ko ànd ak moom ak njaboot gi. cantaakoon ak njaboot gi ñi ko ànd ak moom ci liggéey boobu. Mhm. di sant jëwriñ yoonu universel yëpp ñu leen sant sant cantaakoon yëpp waaw ci jëf jooju ñu jëf yóbbu ko sëñ Muntaxa mi nga xamante ne mooy sëriñ Tubaa sëñ Muntaxa mooy sëriñ Tubaa mhm. sëñ Muntaxa ñun amuñu payam waaw sëñ Muntaxa ñun dañoo war a miraas suñu lépp jox ko jëbal ko ko xoolal rek jamono ci ginnaaw dëkk bii di doon waaj a tàkk ni sëñ Muntaxa doxee bu doon moom senegal tàkk mhm. bu doon moom heure bi gars yaa ngi dugg suuf rongal yi ak xool fu ñuy jaw waaye c'est grâce à sëñ Mountakha ba jàmm am ci réew mi waaw ni mu doxee moom dañ koo waajal sëñ Mountakha dañ koo yàgg a waajal sëriñ Tuubaa da koo waajal sëñ Mountakha xanaa xam àdduna bépp mën na ko lijjanti ci benn saa kon nañ sant yàlla ci li ñu sëriñ Tuubaa jox sëñ Mountakha mi waaw tey ñaane ko mu yàgg fi te wér waaw 17 bi nag ñu ngi woo senegal gépp mm-hmm. ñu ngi woo Tidiane tijaani ñi ngi woo xaadar ñi ngi woo layen ñi ngi woo catholique yi ñëpp ñi ngi woo ñëpp amul xaj ak seen di bisam boobee nga xamante ne ko fonkoon ñu ngi woo ñëpp di ci woo cantaakoon yëpp ak jëwriñ yi waaw ñu ngi woo ñëpp Sénégal gépp daal ñu ngi lay woo ñu ngi leen di woo <clears throat> waaw di woo président de la république <clears throat> di woo ñëpp di ci woo soxna moom moomi Kébé moom sëñ Saliou Ablaye Tage moom sëriñ Saliou ñooñu foo tuddee sëñ Saliou tudd leen soxna moom i kebe bi nga xamante ni euh, ndeysaan dama am ay pàttaliku yu bari ci moom nga daa bokk ci soxna yi nga xamante ni euh, jamono yi mi nekk kër sëñ ba euh, yu mu fa daan nekk daan fa ñëw moom laa gis ci sëñ Saliou ak njabootam képp ñoo ko daan defaralu muy jëfandiku soxna moom mi kebe nag moom dama daan gis euh, sëñ bi daan ko sant ay mbir mu koy defal waaw soxna su baax la mm-hmm. maa ngi koy nuyu di ko siyaare di ko gërëm mm-hmm. waaw di ko yëgalaale tamit nag 17 avril gi waaw waaw mm-hmm. ndax ñoom wëllëri seex bi la ñu woon waaw maa ngi koy yëgal daal jërëjëf bëggoon nañ ko gën a gën a yaatal gën a waxtaan mais ñuy sóoraal tamit di temps bi euh, du ko du ko mate euh, l' ay a été comme ni ko tubaab ñi di waxee je pense que lan ngay lan ngay daanelee waaw li may daanelee rek mooy mbokk cantaako nii di baalu àq ñëpp waaw di xam ni kat 17 euh, avril bi moom la am waaw yàlla nañ ci dugg ak jàmm te génn ci jàmm barkeb Sëriñ Saliou di woo ñëpp di ñaan nag jàmm ci réew mi di ñaan mbas mi yi nga xamante ni ah jóge fi loolu mbas mi jóge fi ba faaw barkeb Sëriñ Saliou di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér. di ko ñaanal Serigne seex Mbacke moom Serigne Saliou di ñaanal Serigne Saliou ndigal cuun mu yàgg fi lool te wér xalifaab sëñ Béthio bi waaye di ñaanal sang bi toog Serigne Khadim cuun Serigne Khadim cuun Mboose di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér jëmm ji ngeen seet seet si tey dikk ci wàccaayu bis bi nga xamante ni mooy bisu waajuram bi di set avril bi kii moom de sëñ Béthio bari na ak ak njaboot ñëpp ak njabootu sëñ Béthio lañ waaye moom mii dafa xam taarix ndax daa bokkoon ci jëmm yi nga xamante ni sëñ Béthio da ko joxoon Serigne saaliw mu féet ak moom ca kër ga daan defar kafe Serigne Saliou daan naan ci loxol boppam daan defar wasalit Serigne Saliou daan ko naan ci loxol boppam kon tey boo leen fi ñëwee seet si ko ngir mu am ay leeral yu muy def ci bisub waajuram wii di Serigne Béthio di 17 avril bii ñuy waajal ñuy jëm ca ginnaaw suba kon wàcc ngeen Serigne Khadim Thioune Mbose ngi borom yar bi maandu teey nuru baayam ba taar sell jikko sell doxin kon Thioune ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér bis bi ñu fekk kook jàmm ba télé bii ñëwaat ca biir Madinatu Salaam ñu ànd àndaatee kook moom nii ci barkeb Serigne saliw jërëjëf Thioune. auzu billah bismillah inna waani yallaahu ange billah bismillah bismillah yi maa ngi door di gañ ki mata gañ bismillah yi maa ngi door di gañ ki mata gañ suriñ saaliw suriñ saaliwoo borom jurul borom jàppnal borom xaba borom xol kom jaaga maam saaliw kooku la Cheikh Béthio doyloo kooku la Serigne Khadim wóoloo kooku la Serigne Saliou cuunu yaakaar suñ saali wiital nga no borom yërmande gi borom xel kom wéetal nga no fa yàllaahu bismillahi maa ngi door bismillahi maa ngi door maa ngi di way ki jara way fa yàllaahu man mi jooy naa billaay wallaay jooy naa ci sëriñ saaliw fay yàllaahu Cheikh Béthio liggéeyal na ko ba xëy sàngu suuf billaay moom laay jooy te noppeegum fay yàllaahu boroom yërmande gi boroom darga ah, ah, ah, soxna Didi eh, ak sëriñ saaliw Euh, soxna Didi ak Serigne Moussa mi nga xamante ni moom mooy jëwriñ jëwriñ universel moom moo sax euh, yombalal mën naa ne gise bi ñu kontaanoon bu baax a baax di ànd ak yéen ci émission bi nga xamante ni moom mooy gise ak ñu ak yéen ba di 17 avril dañuy dem ànd ak euh, ñi nga xamante ni mooy cantaa yi cantaakun yi ñëpp la ñuy àndal dem ànd ceeg Serigne Moussa gërëm bu baax a baax également ki nga xamante ni moom mooy Serigne Khadim mi toog ñu koy jaajëfal bu baax ba wax ji leer na te communication bi set na trop macha allah caméra bi euh, Toumani sama xarit moo ci nekkoon di leen jox rendez-vous ci beneen émission beneen gisaak jaajëf.